xarit yi ñu ngi leen di nuyu di rafetlu ànd beeg seen site bi di gaal Sunugal 24 di am mbégte lool nag ak bànneex ci dellu siwaat ci kër Mbayang ni ñu koy defee saa ne tey nag kër gi génn defub doxantu rek ñëw ba fi nga xamante ni mooy diwaanu Maris ñu fas yéene ànd ak koo xamante ni euh, tabarkàlla macha allah li ñu jot a gis ci moom jaral na nañu jóg loolu moo tax ñoo fekk si ko ñoo fekk si màkkaan mi fan lay ñaanee ci yan am anam lay ñaanee waaye itam bi mu fi jaar rek léegi résultat yi ko yàlla dénk tam dinañ ci waxtaan Serigne Abdou Lahad Gaye Irada la ñu koy wax ñu ko fekk ko fii ci Maris ngeen mën ko fekk itam Ouest Foire Cheikh bi maa ngi lay nuyu di la ziar la bàyyi nga nuyoo ak mbokki internet yi ñuy seetaan aouzu billahi mina shaytaani rajim bismillahi rahmaani rahim wa sallallahu ala sayyidina wa mawlana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman wa bi kalaami wa bil isharati ihdil muridin yatlubu inaara soxna Mbaye ñu ngi lay fay bu nuyoo baax te mm-hmm. di la siyaare tey rafet lu baax Mm-hmm. déplacement bi ñëw ci daara ji. Mm-hmm. loolu lépp ngi yaatal xam-xam rek incha allah taala. incha allah ñu ci am mbégte lool nag ak bànneex tabarkàlla macha allah eh, ci ñëw bi nga xamante ni rek ñëw nañ ko fii sëriñ Abdou gay Gaye nekk fii nga xamante ni moom mooy Maris di yëngu ci wàllu ñaan cheikh bi ginnaaw bi nga eh, jaaralee ci émission bi ak léegi yaakaar naa ni yàgg na yàggul ndax deful sax un mois bokk su ma juumul eh, naka nga gisee jafe-jafe askan wi fi mu toll parce que dagaan bari na lool. jafe-jafe askan wi fi mu toll naka nga ko gisee. waaw loolu moom dañuy sant yàlla bu baax rek jafe-jafe askan wi moom ni ñu ko gisee mooy. Mm. bi ñu fi jaar yeegul ni ko waxee. au mm. moins ça va bëri naa gannaaw fukki fan ak juróom-ñaar lay toll. waaw ci loolu lay toll fukki fan ak juróom-ñaar fukki fan ak juróom deux semaines lay toll. Mm, waaye xëy nit ñi gis ñun. moo waral ñu ñi may ñëwaat suñu jëmm ji. ngir mën fee toog. moo waral yow li nga nekk kilifa kilifa yi. nga ñëw ba ci daara ji. ngir ñu mën a seq jiraay waxtaan boobu. ngir mën a xamal nit ñi ñaan moom fa mu nekkoon ba léegi ma nga fa te du fa jóg. Mm-hmm. nit ñi nag moom ñoo ngi jëfandikoo ñoo ngi jàkkoon rek ay coono yu bare bari ci wàllum ñaan ndax li lay woo li ci ëpp mooy jox naa sëñ nangam sama xaalis mu lekk ko jox naa mm-hmm. sëñ nangam sama xaalis moo ci ëpp mm-hmm. waaye nag yàlla dimbal noonu la ma waxoon laay waxaat ñaanuma ngir laaj nit xaalis ñaanuma ngir bëgg a siiw ndax bu dee siiw nit ñi am nañu ma xam mu doy ma sëkk bu dee xaalis li ma yàlla wërsëgal doy na ma sëkk waaye dama cee ñëw ngir yàlla tey xam-xam bi ma dénk dama ko war a yaatal ngir mën cee jëriñ julli ñëpp mm. mën cee jëriñ taalibe yi mm. ndax njëriñ li ma leen di li may jóge ci man jëm ci ñoom mm. mooy waral maam ci yàlla aw yow ndax yoon dafa wax nit ñi fi ñëw ñoom ci gis résultat alhamdulilah nit ñi jaaxle loolu guddi yi ñu toll ñaankat bari ni nga ko waxee euh, soxla yi di gën a bari di gën a tar tabarkalla macha allah yàlla ubbi la ci bunt ay résultats lu tax fu euh, sëñ Abdou Lahad waxee rek dafay wax ci ne euh, damay ñaan te yàlla tax di ñaan ba yeggal te du laaj nit ki dërëm lu lu waral loolu. loolu du ko waral mooy dama naa ñaan di laaj xaalis comme ñëpp laaj weexal. Mm-hmm. nit ki seetal naa la lii nga may jox <coughs> waaye ba ma dem ba gis ni. Mm-hmm. bàyyi gi bañ a laaj nit ñi daal sax moo ëpp ci man ndax lépp lu ma mm-hmm. daan am ci am laaj. ci ñàkk la laa ko ëpp foofu lu ma am. d'accord te nit ñi am nañ ci woon kóolute ak mhm. yaakaar ju ton ni mhm. ku ci xas yàlla dogal ma jëflante rek mooy bàyyi sa lépp te ba ma bàyyi sa lépp yàlla defar sa lépp sama diggante yow mhm. waaw loolu moo waral loolu am na solo waaw kon euh, mu ngi noonu yéen a ko déggandoo ñu ci dañ koy nattable ndax euh, dina am ak du am li nga xamante ni moom mooy wàllu euh, ñaan te yàlla tax Euh, léeg-léeg nit ñi dañ koy nattable waaye mi ngi fi ci fii ci maris wala bu la neexee itam adresse bi am nañu lay fekk Ouest Foire waaw donc ñaari adresse la mhm. euh, Serigne Abdou Lahad Gaye Irada moom lañu mhm. àndal mhm. ñu ñëw ci wàllu seet Cheikh bi bala ñoo ñëw ci numéro yi wàllu seet moom gars yi nee nañ ma day euh, ndax léeg-léeg dañuy yable ku leen xam wala ki leen di booleeg moom da di xam wala ndax Serigne Abdou Lahad daf leen di xam carrément non non wàllum seet moom ñoom ëpp ñu ma jëfandikoo sax xëy na xaw ma ne sax mosuma leen dégg mosuma leen gis. waaw parce loolu moom xam nga xam-xam la. Hmm. ndax seet moom wax naa ko ba tàyyi mbirum junne la. Hmm. ndax alxuraan ba muy wax naan fa man yastami' seet mu di ko wax hmm. waaye seet ge day loo xamante ni tey ma ngi ko gis nit ki mu nekk lu positif bu subaa mu nekk lu négatif. maanaam mën ngaa wax nit ki tey lu nekk bu subaa du nekk. mais seet yi ñu ci am moom dama koy faral di wax nit ki ay faral di wax ne leen rek laay laaj nit mu fay ma ko mooy ak seet moom nangam laay seete ndax parce seet gi may seet moom bir mm-hmm. na man yombul nit ku koy seete moo tax dama ciy fayoo ko moom dama naan nangam nga ma seetal la te saa su ma la seetalee li ma lay wax lu wér la te yow mi yaa gën a xam ne loolu wér la d'accord waaw ndax bu dee jamono yonente bi daanañ seeta ci wërngal yu bëri bëri mhm. ndax bu dee jamono yonente bi daanañ seeta ci li ñuy wax al mhm. boo yëngalee mu taxaw ci al aana mhm. mooy la nga doon jàpp jàpp yoon yoonu baax na bu taxaw ci annahi mooy baaxul bu taxaw ci al mutarabis da ngay muñ ba beneen yoon yàlla nag daf noo dénk al alam ci seet gi seet goo xamante saa ñu ci xoolee ni lu ko wax lu wér lay doon li ñuy wax nag nekkul day taxaw place yàlla ndax woo maa yàlla mu xew illallah mm. li war a xew suba yàlla rek ko xam waaye nag ci biir loolu yàlla am na ñu xamal ci gaayam yi loo xam mm. saa yoo leen laajee sa ñu wax la ko tey loo gëstu ci mën ko am waaw loolu waral wute muy lu am solo ndax ndox ngay seetee wala alxuraan wala kayit wala doo ko wax non listixaar lay def moom la ëpp lu may def waaye nag am naa beneen seetit boo xam te ni mm. bu dee li ngay seet dafa yàkkamti mm-hmm. dama la koy seetal. ci saa si. waaw du ci saa sax mais dama naan la feeg ñaari waxtu wala feeg waxtu rek nga wataat. ba mais ba beneen bi listixaar bi mooy. fanaanoo listixaar mooy fanaanoo baax. Euh, lu waral ñu bari ci wàllu doom lu am doom moom li ma ci yor kilifa gi ma ko jox sëñ Tuubaa jur baayam. Hmm. moom laa tarbiyewu ba mu jox ma ko. muy kilifa gu ma ko xam ma tuddoon turam moo jur baayam moo ma ko jox ba ma ko joxee ba léegi nag mosuma cee ñaanal nit muy échec ndax alxuraan dafa xam ne wa asaa an takrahu shay'an wa huwa khayrun lakum wa asaa an la shay'an wa huwa mm-hmm. yàlla dafa xam ne am na ci nit ñi ñoo xam ne dañuy bëgg lu gën ci ñoom am ñoo xam ne dañuy bañ lu gën ci ñoom waaye nag yàlla loolu lépp dafa wax ne wallaahu ya'lamu wa antum laa ta'lamuun mm-hmm. moom moo xam te moo ànd ak xam mm-hmm. looloo waral sekkaram doom moom damay faral di wax ni laa ci appal nit ki li ma koy jox saa yu ma ko joxee. Mm. bu ko jëflante diggante ma soxnaam yàlla dina dogal am ba am ci incha allah. ci wàllu am doom ci wàllu am doom un mois mooy date bi ci gën a bëri saa yu ma xoolee ba ne la mën naa nekk. Mm. un mois laa la may ci kàttu yàlla loolu yi ma fa xay bi laa taan des duwaa duwaa nee na saa yu rafetalee jëmale sa wàll na nga ko delloo fa saase bu ko yeexee xëy na rafetal gi ma rafetal jëm ci ñoom di leen ñaanal te yàlla rek tax li ci am yéene mm-hmm. ak teraanga yi ñu seq loolu rek war a. waaw. te même chose ngay demee ci wàllu kattan parce que kattan dama ko daan mujjeel ci samay émission mm-hmm. mais wàllu am doom ak wàllu kattan dafa doon loo xamante ni. Mm-hmm. dañu méngoo ñoom ñaar. Mm-hmm. même chose nga ciy demee ci wàllu kattan. wàllum kattan moom damay faral di wax li ma ci joxe. Mm. du ay sunguf du ay reen du am ndox. Mm. du li ma ci def dama koy lu ñuy togg ci ndawal la ma jox la ko. nga lekk boo ko lekkee ba ba ngay faatu duto ñàkkati kattan. moo xam da nga koy bu fekkee noonu lekk gi moom mu ngi dépendre yow rek benn noonu. ndax mën naa mat kilo yàpp mën naa mat libre yàpp ça dépend ci nit. mais saa yoo ko lekkee ba mu jeex kattan dàqal nga ko moom dootu amat benn kattan. d'accord parce que yenn saa yi nit ki ñu fajal kattan mu am mu wér mm-hmm. yooyu mm-hmm. sungu koy waral. Mm-hmm. ndax wa nunazzilu minal qur'ani maa huwa shifaa'un wa rahma lil mu'miniina la yàlla wax yàlla neen wàcc na lépp loo xamante ne luy saafara la ci alxuraan kattan moom saa su ci nekk dama ci am ay commande partout dans le monde te résultat yi ma jëfee nit ñi xam na ko baax a baax looloo ko waral. kenn dootu ko nattale 77 la 845 83 05 77 845 83 05 wala nga def 76 513 39 39 76 513 39 39 nga jokkoo ak ki nga xamante ni mooy Serigne Abdoulaye Gaye Irada <coughs> fii ci Maristes wala ci Ouest Foire. incha allahu taala mu saafara seen jafe-jafe ci dimbalu suñu borom. Hmm. ba tey ci wàllu ñaan dama ciy delluwaat. Hmm. ginnaaw bu ma jógee ci jàngoro jooju nga xamante ni kàttan la. Hmm. jàngoro da koy def rab da koy def leneen daf koy def. waaye gis naa ne kii di Serigne Abdou Lahad euh, Irada. lu jëm ci wàllu kaaraange. ak lu jëm ci wàllu muslaay ak cet. dafa nekk mbir moo xamante ni mbiram la. te la ëpp ci ñi ngay ñaanal mën ngaa ñaanal nit ki doo ko jox sunguf doo ko jox reen doo ko jox ndox doo ko jox dara hmm. day toog fa mu toog nga toog fa nga toog ba mu yëg ne li mu doon saafaraw saafara na yooyu oh. ñaan moom secret bi lépp waaw mooy tur yàlla lu may liggéey sama kurus gi yaa koy liggéey maanaam hmm. lépp sama ñaan du jox nit lu muy sang wala muy teg wala muy naan hmm. damay tëju ñaan ci yàlla yàlla saafara aajum joojee aajara joo xam te saa yu ko ñaanee ba yàlla saafara ko mm-hmm. dootu desiti ci yow mukk di la loolu laa gën a gaaw naan parce que naan li ngay naan dat man mën naa jeex li ngay takk dat bi mën naa jeex li ngay sangoo mën naa furi waaye tur yàlla moom mënut a ànd ak luy jeex te tur yàlla boo gisee jàpp ay sarax mm-hmm. sarax yi nag li ma faral di wax rek mooy képp ku ñu ñaanal ban la sarax yi nangam nangam ngay def mm-hmm. li gën ci ñun gënal sax mooy nga jëndal ko sa bopp indil ko Mm-hmm. wala nga yabal nit koo xam te ne koo am ci moom kóolute la mu jënd ko indil ko mm-hmm. ndax loolu yëpp day gën a leeral suñu diggante ñi li nga ñuy jox jëmul ci ñun ci sa bopp la jëm suñu la liggéeyee la moo tax kaaraange am nañ ci yoo xam te ne bu fekkente ne nit ki parce que am nañ ñoo xam te ne faaw da nga leen jox ñu takk wala ñu naan wala ñu sangu mm-hmm. waaye yor nañ ci façon yoo xam te ne saa yu ñu ko liggéeyee képp koo xamante ne dafay yëkkati dara jëmal ko sa kaw bu faatuwul maanaam la koy dal dina nekk musiba moo xamante ni dootu mën a ci boppam waaw faatoo koy dane a boppam dara ci àdduna hmm. loolu moom lu wér la ndax yàlla yontu fi waxoon ni isha aradallahu sayn asamalahu yàlla bu namee dimbali nit ki hmm. daf koy jëfloo kon ku yàlla na ma dimbali nga am kaaraange gu wér da ngay fexee jokkoo ak su ko defee incha allah dégg nga ko am nga loo ku la xam ne ku la laal kenn dootu la mën a dara ci ak ku mën dootu la mën a dara waaw cat cat ak muslaay moom cat moom dañ loo xam ne sonal ñëpp mhm. moo sonal yonent yi fi moo sonal sëriñ si mhm. ñun ñëpp moo nu sonal mhm. baraana sax dama koy faral di wax ne leen ku ko man saa su ne boo xëyee dee ko sangoo ndax li nga yor mu rafet sax nit ñi di ko tudd rek ay cat la rawatina nit ñi toog di wax ci yow lu ñaaw te nit ñi bari na ndax alxuraan waxoon na inna ba'da zanni ismun wala tajassasu yenn ñaaw njort yi bàkkaar la te yan ñaaw njort yi mooy wér di wax ci nit mhm. ak di wax ci nit loo xamul la leerul mhm. waaye képp koo xam ne ba nga cee mucc te cati day fànqal nit ki lu bare bari ndax nit ki mën na xëcc dara te du ci jot fekk car rek moo tax mhm. mënu a ngi échec lu bare bari ci moo tax muy échec bu yàlla dogalee nga jokk ak ñun nag saa yu nekkee caw des na ko dindi te saa yoo bëggee ñu aar la ci wàllum cat yi des na la mën a aar ba lool dootu li mën a yàqal bari bi ci àdduna ndax yonent boo xam ne ni suulu maa kon cat lu am la te yonent yi gëm nañ ko. dëgg la waaw. te mu doon lu ñu ragal lool saa su ne ñu xëy di war cee muslu yàlla nañ ci yàlla musal waaye itam gis naa ne itam wàllu rab da ci dugg sànq. Mhm. balaa may ñëw ci wàllu kayit wàllu rab itam dafa nekk loo xamante ni. Mhm. Euh, non seulement. Mhm. lu la yàlla may la. nga di ko jëflante gars yi. waaye doon na loo xamante ni itam yaakaar naa ni doon nga paj mi ci kër maam. wala da koo tarbiya. non sama kër maam bu dee sama wàllu kër maam. am na ñu daan waaye nag donnu ma ko. Mm-hmm. li ma ci xam ko su ñëw yàlla dimbali ma ko jàng. ginnaaw mu jàng waxoon mokkal ko ba pare. Mm-hmm. damaa dem gëstu asraar. Mm-hmm. ay kilifa yoo xam dama ne tarbiya ñu jox ma secret yi. secret yi ma jox na fukki ay waxaan ak benn la. waaw dafa am ay reen yu àndal ci garab yi yàlla sàkk ci àdduna bi rek. bu ko defee buñ ko booleeg moom buñ ko bindee boole ko yooyu nga sangoo ko. rab day daal denc yow. bu dee da nga daan daanu rab dootu la mën a daanalati mm. bu dee koo xam te ne dafa tàggoon ak sagoom suñu borom day mën a dogal mu daal di wér mm. bu dee koo xam te ne dafa am rab ba mënut am jëkkër wala mënut am soxna tamit wala mënut am doom sax loolu mm. doo ko daal mën a dindi su ko defee loolu dañ la koy jox nga fukki aay ak la bind la boole ko reen ñu koy boole leen benn garab sax mais ay garab yu ñu la rek bu ko defee nga sangoo ko incha allah taala rab dootu la mën a sonal ci dara dugg na ko ta yóbbu ma xelam ki nga xam ne rab da ko dugg man ñu koy woowee dof mu yóbbu xelam. waaw saa yu ñëwee ci ñun mën nañ ko faj ba mu wér. ndax wala laa fadlullahi aleykum wa rahmatuhu wér moom yàlla ko te ku wér yàlla. waaye mais cheikh bi de. de déggoon na sama ñaan moom lan lu may laaj xaalis dama ne nit ki li ma koy laaj leen dong na su ko aajee mooy ay sarax. te bu ko neexee na ko jëndal boppam indi ko du ma laaj nit xaalis. sarax nga ko nangam nangam ak nangam laay soxla. Mm-hmm. bu ko neexee mën ko jënd boppam bu dee bitim réew nekk na yónni ko ko wóolu jënd ko indi ko jur bu ma jox xaalis bi. loolu de fii rek la ma sàmm. waaw Serigne Abdou Lahad Gaye Irada nekk fii ci diwaanu Maris ak Ouest Foire macha allah euh, ci ngeen di amee xeetu baax baax yooyu nga xamante ni euh, man baax baax laa koy tuddee ndax nag ku yëram askan wi ku ne tabaarkalla macha allah man dama ciy kontaan waaye ba tey sëñ ñu ñëw ci waa bitim réew ak wàllu kayit yooyu. Mhm. pare boo pour dem de bitim moom wàllum kayit moom. Hmm. xam nga def na ci résistant bu dul benn du ñaar xëy na wax dëgg du mënta ñàkk rek euh, ndax rab yi xaw la jawaab fi sukkur te Sëriñ Tuubaa waxoon na war na wax joo xam te ne noppi mooy ab tontom waaye nag buñ ci daa wax dañ ci wax ngir leeral rek dëgg la ñi ñëwagul waaye ñi ñëw moom mm-hmm. xam nañu bu baax wàllum koy lool la mm-hmm. dama doon ci ñaan nit mukk mu échec ñaan gi 23 jours lay dire 23 jours ñaar ko fan ñett lañ ci ñaanal nit ci wàllum kayit ak kayit gu moo xam nationalité réew la wala nga bëgg passeport wala nga bëgg permis wala nga am këyit toppatoo yu ma wala nga nekk fii bëgg a tukki. ñaar fan ak ñett visa wala dara waaw visa ñett lay mais ak fanweeri la jëm ak Gambie réew mën a nekk ci àdduna mu mën doon bu déggoo ci li ma lay wax ba nga def li ma lay def ñaar fan du ko passé nga déposé sa këyit am ko loolu damaa wax ni. bari wax yi ba pare di xaar xaar yi nag waaw moom moom li ci mën a na nga jokkoo ak man rek soo jokkoo ak man ba ma seet ko ba ne leen nangam ak nangam la wala nangam laan koy defee su boobaa nga xam li ma wax baax te li ma wax dama koy def lu laaj xaalis dama ne xaalis mu leen noonu laa koy def mooy ak seet la naan nit nangam nga may fay lu loolu ma laaj xaalis a demee noonu seet laa laaj nit xaalis ni ko nangam nga may jox ma seetal la mais bu dul seet du ma laaj nit dara ci genn ñaan gu ma du ma laaj nit dara du yow gis nga man xam nga ñaan gi ma ñaan moom. toroxu mm. ma ci moom. déedéet. yàlla nga ma ci dara. te it boobaag léegi nag kenn woowu ma mere la. Ah, ah, dégg ku de waxoon naa la ko sa émission bu njëkk ba. waaw ne woon naa doo dégg mu ku la di ma xas wala mu may ku la woo ku sant di ma gërëm te war a nga déplacé ñëw fii xam nga ko baax. waaw macha allah jugloo ma ah. moom yombul waaye woo leen ko 77 845 83 05 wala 76 513. 39 39 mooy numéro Serigne Abdou Lahad Gaye Irada mu ngi fii ci diwaanu Maris ak euh, fi nga xamante ni moom mooy Ouest Foire Cheikh bi bala ñoo jeexal faaw dinañ ñëw ci li nga xamante ni mooy wàllu jaaro mhm. ak wàllu ubbeeku mhm. ñu bari seen jaaro day def ubbeeku yow yow sa jaaro ci lan lay dox sama jaaro de ci li muy dox moom day dox ci ubbeeku mhm. day dox ci kaaraange day dox ci bayra day dox ci wàllum bagg maanaam pour nit ñu sopp la jaaro boo ko xasee am koo joxante loxo dana la sopp tuuti la sañ a bañati moo tax ñi ma koy faral di liggéeyal du ñëpp laa koy liggéeyal nag ñi ma koy faral wax ne képp ku ngeen di nuyu na nekk ku ngeen nar a jëflanteel. waaw parce que loolu dégg naa ko. waaw ndax saa yu loxo dootoo ko sañ a dootoo sañ a bañati mu tedd même boo ko bañ dootoo sañ bañati tedd na. te te dalay topp. moom bàgg la boo xam ne boo ko xasee am moom. Mm. jigéen ñi dina la topp góor ñi dina la topp na la topp nit ñi dina la topp te it day dox ci wërsëg boo ko xasee am. fi ne ñi ma ko liggéeyal. su ma leen ko liggéeyee mm-hmm. dañuy doxal weer wala ñaari weer tàmbali maa woo ma sëñ sama mbir ngi tàmbali sensé résident mm-hmm. li ma jot ci ay résident kenn xamul nu mu na ci ay audio waaw li ma jot résident bi mm-hmm. mm-hmm. moo tax jaaro ba damay wax ni euh, falamaa jaa amrunaa najjaynaa saalihan wallaziina aamanuu ma'ahu bi rahmatin minnaa may ma ci yàlla may ak li ma ciy defal damay gëm du sama njàmbaar du sama dàq fee jaam yàlla du sama gën fee jàng alxuraan du sama gën fee sell waaye yàlla la neex rek mu jagleel ma ko loolu laa jàpp jaaro boobu moom jaaro bokkut ak jaaro Ah, mais nag jaaro lu la defar ko donc kooku moom laaj na génne xaalis. non jaaro bi li ñuy liggéeylu la mais exemple bi ma la jox rek man. Euh, li ma ciy laaj nit nekk na loo xam te ne ñi ma koy laaj ñëpp foog na ma am. Hmm. da nga ko am ndax li may laaj lépp sa bopp la jëmaat bu dee jaaro bi yëpp dama ne la yëpp maa koy liggéey. Hmm. man maa koy liggéey sama alal bopp. Hmm. boo ma man la lii ak lii ak moom ngay def doo ko mën a am ci jaaro bi. loolu lépp ay xeetu sarax la. la te sa bopp la jëm. moom la faram fàcce laa dogal tey ki ma koy def loo su wóoloo sëñ bi na ko yónnee bu ko wóolul ku mu mën a wóolu na ko yónnee ko waaw laaju ma xaalis laa man ne la ñaan naa ne laaju ma xaalis dëgg la waaw du ma nit mu ko du laaj xaalis def naa ni leer na de boobaak léegi maa koy coytu di ko coytuwaat waaye ba suñu joon yàlla tey même parole bi lay wax du laaj nit ki xaalis Euh, ci lu mu mënti doon mhm. waaye nag am na ci loo xamante ni sarax la mhm. yaa ko koy doyloo jox ko ginnaaw yàlla mu jëndal la wala nga jox ko ku la doy mu dem jëndal la ko mhm. su ko defee mu ñëw mu defaral la li mu lay defar lii nag fii rek laa ko mos a gisee euh, ci li ñuy jeexalee rek mooy wallu noob moom maa ngi toog sax sànq maa ngi dégg ne yaa ngi wax téléphone am koo xamante ni mu ngi wax ci fi yi na seet nangam sàngam <laughs> Euh, mu mel ni ko góor da koy def jigéen da koy def. Hmm. nopp sa soxna ngeen nekk ci nekk ci jàmm. wala nga nopp sa borom kër ngeen nekk ci jàmm. Hmm. loolu nag nekk loo xamante ni sa fort la. Hmm. waaye nag comme faiblesse jigéen ñi la. foofu moom xam naa ni da laaj xaalis. déedéet laajuma ma xaalis. noobal nit ki ab sëyam ba mu delluwaat xaalis dama du ko laaj man sama mbir lépp ci ay rawaan la ak turu yàlla. ak sa. li may laaj xaalis li wax naa la ko te dinaa ko baamtaal. mooy seet ga ak d'accord képp ku may bëgg a seetlu te yoroo xaalis jur mais saa yu ma la ba wax ne ak lii mooy sa mbir. Mm-hmm. te nga ne ma waaw lii ak moom laa soxla sëñ bi. wala lii ak laa bëgg ay sarax def. Mm-hmm. ma ñaan la yàlla ci kurus gi nit ak nit la moo xam nit jigéen gu bëgg borom këram ba góor gu bëgg wala ngay bëgg nit mu lay dawloo. Mm-hmm. moo jigéen. saa saa yu ñëwee ci defal. bu ñu ko defalee bu dee góor na la bu dee jigéen na la waaw bu dee defal nit ki ci patron ak yooyu. Hmm. loolu tasxiir lan nga wax. mooy mooy defar nit ki ba nga xam ne ni dootu la sañ bañ a des dara. d'accord da lay loolu tasxiir la. waaw bokkul ba tey takk. takk hmm. mooy par exemple nga dikk ci nit bëgg ma dikk mbay mi soxna mbay la ma 5 millions. Hmm. mu leen su ma ko leen bañ. mu ñëw seen bilan la ma 5 millions. takk na ko waaw bu ko defee ma def loo xamante ne soo demee mu lewal ak force te du ko bañ. day ñetti mbir bokkut mooy noob ak takk ak tasxiir d'accord mais lenn lu ci nekk saa yoo jokkoo ñun boo ñëwee fii incha allah taala li ñu la ci wax lépp dina am waaw ndax it li ñuy wax moom waxuñu mm. ngir suñu bakkan yàlla na ko dégg nga xamal na ko ñu koy wax ndax laa yukallifu laahu nafsan illaa wusahaa yàlla tegul kenn lu mënul comme yàlla tegul kenn lu mënul te mm. laa duñ kenn benn dërëm it mm. nit ñi duñu tax a wax lenn loo xam ne mën na ko waaw te seen la daa waxoon ne da ko gën moo tax fi nekk moom ñoo ngi fi te nit ñi ñu xam xam noonu baax fi dëgg la loolu mooy la am solo nit ku buñ ko tuddee nit dina jël ci moom juróom-ñaari jikko tabarkàlla macha allah boo ko déggee rek li nga xam ne Serigne Abdou Lahad lañ ko tuddee mm-hmm. borom irada nga euh, Serigne Abdou Lahad Gaye macha allah fa tabarakallaahu may wax jigéen ñi rek nañu dem ci moom waaye sëñ Laat euh, dafa am loo xamante ni bëgg naa ñu wax ci mm-hmm. euh, sa kurus gi ñu bari dañ ne kurus mënul jooni jooni wala alxuraan mënul jooni jooni mm-hmm. yow nga yor sa kurus ne loolu moom ijaaba la mm. suñ tuwaa daa wax ni ijaabatan tusaasihul aada ilaa siwaahum sarmadan waada mm. ijaaba ju ko yàlla defal ci la faagagal mboolem ñu ko doon loolu ñëpp mm. te day wéy ba faw mm. doon loo xamante ni day jariñ nit ñi xam-xam nag moom mooy nit ki xam xam li mu war a def xam-xam mooy xam li nga xam li nga war a def yeewu mooy xam na koy defee réussir nag mooy nga def ko ñett yëpp daa aji ab sëriñ xam ko nag xam-xam bi xam xam nañ ko. Mm-hmm. moo tax xam nañ li ñu war a def. Mm-hmm. yow gi mooy diggante ñi ne yàlla dénk nañu ko. Mm-hmm. moo tax saa su nekk nit ñaa ñëw ci ñun. lii def nag bay sottal aajo nit ñi nag loolu la tubaab di wax réussir. te loolu saa su ñu ngi ko defal nit ñi moo tax saa su nekk nit ñi dina woo ak dina wër fu ñu toll. waaw wax ji nag li muy bari bari am nañ ci amuñ ci ak ngëm. ba weddi sëriñ su bari. mooy li suñu waxoon rek wa an jaaxalakal ahad fa enxarit xanu wala sim simtu. suñu tubaab ne bu leen nit créer bay wax ci yow lu da bul ko te ina fi sumti raaxali sumuuti noflaay bi ci noppi ko xamoon da nga koy dëkkee kon wax ji ñuy wax du bari wax mhm. du dàq fee jàng du gën fee xam mhm. yàlla dafa am nu dénk ñu toog di ko leeral mhm. ku ci yàlla na ma dimbali nag da nga ñëw ci ñun ku yàlla merte dimbali ci ñun nga dem feneen rek loolu mooy wax ji muy loon solo sëriñ Abdou Lahad Gaye Irada ni ñu leen ko waxee rek moom la àndal tey ci émission bi euh, tabarkalla macha allah mu nekk borom xam-xam nag wax naa ni set dinaa ci fayeeku waaye wàllu ñaan moom duma ci fayeeku ni dara hmm. xanaa nga def say sarax te it nag tabarkàlla macha allah yàlla wàcc ko kon bu leen ne dimbali jaam ñee ma tax a jóg wares na koo mën a gëm hmm. yàlla na yàlla def seen aajo fajoo fii hmm. biir ak biti ci barke yonent eh, na ay nitam yoo xamante ni ñu ngi ci ni tabarkàlla macha allah ku ci mel ne sëñ laat mi la bokk ndax nee naa la namu dara taxu koo ñaan de déedéet man xam naa ko bu baax a baax waaye nag eh, sëñ bi li ñuy jeexale mooy Euh, lu ci mel ni ay dafa am ay xeetu jàngoro yu sonal nit ñi dama ci dellu si waat mm-hmm. ñu bari dañ ma koy wax naa man bi lu tax mu ne du faj tension diabète ak ndoxum si teg ay hémorroïdes ak yooyu euh, lu tax loolu xam nga bu dee hémorroïde sax moom mm. dinañ ko man di faj waaye tax du ma ci faj mooy mm. garab yi ngay boole pour di ko faj day mekk ab coono mm. liste bi ñu yor bu dul ci liggéey. Mm-hmm. ak ñi ma àndal ñëpp ci wàllum liggéey bi. ay mm-hmm. goo xamante ne mun ma ko boole loolu. loolu damaa jàpp ne am na lu ko gën a farata. Mm-hmm. ci que loolu am na ñeneen ñu nekk seen domaine. moo tax yooyu yëpp ko faj. moo tax ma xam ne ay cité gi ay xaw ma ko du ma ko faj du sax dugg. waaw du lu ma tëlee 100% mais daal am na ma koy bàyyi daal. ndax it eh, maanaam ku mën lépp ba mu xam lépp ma amul fenn moom. wax yàlla mënu sàkk sax xamul lépp. mënul lépp amul lépp kon bu ko nit ki bëggee moom day sonn. Mm-hmm. li nga xam ba xam ko daal mooy fi mu toog di ñaan daal yor suñu kurus. Mm-hmm. ku jëflante da nga ñëwaat moom. walla lan mën a xam moom muy li wér moom. looloo waral a dellusiwaat. waaw <laughs> lan ngay tàggatoo mbokki internet yi. li internet yi mooy. Mm-hmm. nan xam ni daal ak sëriñ moom yombut. ab coono lay laaj ay métti la ay tartal lay laaj. ndax sëñ Tuubaa a waxoon ne bi xadri kaddin taksibul maani fa mun talabal la layali. ne woon na ci métti ak tartar ak ci leen amee yàlla. te képp ku sàkk wut yàlla da ngay nangoo taxawal waxtu guddi di jaam yàlla nit ñi ñaanal tamit nan xam ni 1 million yi jox sëriñ si 600 mille yooyu du dara ci li leen sëriñ si ñaanal nan ko xam li sëriñ bi jànkonteel ngir aajo mën a faju moo gën a métti foofu loolu donte alal lu sax ci xol la waaye nan xam loolu te gën a rafetal seen diggante ak sëriñ si te sëriñ si gën a rafetal gën a rafetal seen diggante ak ñoom mm-hmm. Mm-hmm. waaw man li ma wax leer na man ñu waxuma jot téléphone waaye sama téléphone maa ko yor. Mm-hmm. ku woote mën nga jot. non sëriñ bi nga xamante ne bi mu lay woo. waaw pour nga seetal jot na la. nga woo sëriñ bi. lan la lay laaj ci weexal nga jot ko. lan nga yow laaj ci sarax. nga jot ko. jox jëlal numéro bi ma lay envoyé xaalis bi nga jot ko. dara desul lu dul nag moom mu war a jot ay garabam mm-hmm. mënatu la jot. Mm-hmm. loolu tam neexul ci xol. waaw xam nga loolu moom. du ma jàpp ne kooku ab sëriñ la. jërëjëf. ki nga xam ne danga ko daan joxe numéro ni waroon nga woo ko jox yónnee ko xaalis mu seetal la mu wax la sarax nga yónnee ko mu wax la fayu ñaan nga yónnee ko nga pare mënul ko jot kooku ko jàppee sëriñ mm-hmm. dama jàpp nit kuy naxaate la a xam sama bopp mooy sama téléphone maa ko yoro sama bopp ku woote mën ngay jot naqaree jot gi nag bari na lool jàmbat mm-hmm. waaye nan ma ko jéggal ndax ku ñëpp itoo moom faaw nga naqaree jot aw ma secrétaire wutuma keneen maa maa wi sama bopp téléphone tax ma ko wii nag mooy mm-hmm. damaa bëgg ku woote boo waxee li nga wax maa koy dégg man ngay jëflanteel boobu ëllëgee benn réeru du

dex ah, li ma ci mën a wax daal mooy. Hmm. na nit ñëpp ànd ak dal. Hmm. te sàgg sarax. Hmm. te doxe ci am xel te bañ see duggee ay xol. te xam ne am na loo xam te ne képp ku bëgg a xëcc ci réew mi. ca kaw rek lay lay lay daal dool lay taxul fi dëgg la. ndax wa taqul fitnatan laa tusiibanna llaziina zalamu minkum xaassa la yàlla wax. fitna moom képp koo xam ne da koy yëkkati. balaa mooy kañ ci boppam lañ njëkk a jaar pare. kon nan ko moytandiku. am waaw di sant mboolem kilifa yi ñu di sant ñëpp ci biir réew mi. yaakaar ji nu am ba yàlla boole ñu fas yéene àjjana ko yàlla gën a continuer te gën a rafetal suñu diggante soxna May di la jaajëf bu baax di la ci disponibilité bi ak déplacement bi ndax kilifa nga tey amoo jot mm-hmm. waaye boo jugee sa kër ba fii mm-hmm. ñëw ñu def émission mm-hmm. xëy na suñu jukkoy bopp moo tax xëy na ak it lu looy dégg si ñun ci lu baax loole nag yàlla bu ci yàlla wàññi dara yal yàlla mottali lépp ba yaakaar ji yéene jëpp ni ñuy doxee ñun mu mën a continuer waaw di suñu borom yàlla na ko defal jàmm defal ko sutura ak mboolem waa sit bépp di jégalu na ci kaddu yi lépp loo xam ne lu dëng la nan ma ko jégal xam mat doomu aadama la lépp lu jub ñu xam ne yàlla suñu borom sama taala wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu waaleykum asalaam wa rahmatullahi wa ñu koy jaajëfal bu baax a baax moom Serigne Abdou Lahad Gaye iraada nangul wax ca kilifa ga nekk weesu foir tax mu indi ma fii ci waaye ba tey nangu naa man fi ñu ma dugal fu ne rek ba mu mën a génne njariñ pour mbokki internet yi rek dama ci daal di kontaan woo leen ko ci 77 845 83 05 wala 76 513 euh, 39 eh, 39 ngeen am ko Serigne Abdou Lahad Gaye tabarkalla macha allah ay mbiram yëpp mu teg ko ci loxoy suñu borom waaye du laaj kenn dara lu may ceet ak sarax yi nga xamante ni yaa koy defal sa bopp mu jëflanteeg yow soo paree daal di koy jox ay kopparam loolu nag yaakaar naa ni bariwul a gis ci wàllu ñaan kon woo leen ko incha allahu taala ngeen daal di jëflante ak moom cant ak ngërëm ñeen leen yéen ñi nga xamante ni yéen àndoon ak eh, di ko ñaanal a baax di kontaane kontaane ñoom sëñ Bassirou Guèye ñëpp ñi nga xamante ni ñoom lañ fekk ak borom ceeb bu neex bi tabarkàlla macha allah mbokk yi jàmm ak jàmm ba beneen yoon ñu dellu saat ak beneen gan ci kër Mbayang asalaamaaleykum am rahmatulahi taala wa barakatu fi amanillah jaa ngeen jëf